samay mbokk réew muy Sénégal gi nga xam ni fi laa juddoo yaroo fi màggee fi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tuur ak sa sant di tourner di jiital ci nuyoo bi sama yaakaar ci àddina muy Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass mi nga xam ne tey mooy xalifa Mawlana Cheikhul Islam ki nga xam ni moo taxawaaye taxawaaye suñu baay muy laa Mawlana Cheikh Ibrahim di ko ñaanal yàlla nag mu yàgg fi lool te wér ndax mooy suñu tiitar kon Cheikh Mahi maa ngi lay nuyu bu baax Niass Koumba Abdallah gannaaw loolu maa ngi nuyu di sant di gërëm sama mag bi nga xam ni tey bàyyi wax na ne lépp lu muy ñaan yàlla karaamaam mooy nekk alquran al karim te alquran jooju tey moo nekk karaama mawlaana cheikh lislaam xaaji ibrahima ñas karaama jooju tey ki ko yore suñu mag cheikh abdul malik mi nga xam ne tey mbooleem li nga xam ne mooy alquran ci Medina Baye gis naa taxawaayam maa ngi koy jërëjëfal bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ak ki nga xam ne sama xarit foo ko gis rek gis ma ci wetam muy Serigne Aliou Cissé mu Haaj Ahmed Ibrahima Niass ñu gaan koo xam ci Cissé Niass mu Papa wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na muy Cheikh Mourtada muy Babacar Lo mu sëriñ Mamoun muy ñëpp su ma toogee ba mu yàgg di liim danaa juum waaye maa ngi gërëm siñaan maa ngi koy gërëm siñaan mu bàyyi ak mboolem taalibe bàyyi yu ma fekk si woon tribunal di gërëm nag spécial ki nga xam ni mooy maire aadama Sarr bu Kër Massar maa ngi koy gërëm di ko sant waaye di ko gërëm ci gërëm goo xam ni ndax lim nekk taalibe Baay ñëw solidarité ci doomu sëriñam ci loolu laa koy gën a gërëmee sàkkantuma ba mu nekkee maire Baay te jour boobu da doon tukki waaye ñëw na solidarité gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn waaye gannaaw loolu nag gannaaw ba ma demee uy ji polémique bi dafa bari te yaakaar naa polémique bu bari boobu nit ki nettali ci làmmiñam moo gën dama leen di wax man MC Niass benn awma ma kenn ku may farfarloo wala aw ma kenn koo xam ne damay wut ci yow daraja yàlla may na ma daraja doy na sëkk daraja jooju mooy lan nekk naa doomu Cheikh Ibrahima Niass ba pare kon man international laa laata senegal di nekk international kon du buzz du bëgg lu rëy wala nit ñi bëgg ma ndax fekk na nit ñi bëgg ma bu yàgg parce que bayra yàlla may na ma ko man ba ma juddoo nekk xale da ngeen di dem Medina Baye nga laajte ko munoo laajte Medina Baye nga laajte xalifa bi te doo laajte ki nga xam ni mooy caat bi muy Baye Mbaye si kon Buzz taxumaa jóg ndax ku yor deux mille soixante deux personnes loolu doy na Buzz waxuma la ak yeneen ay yeneen ay yeneen dayra yàlla def na citoyen la kon ñëpp ak lu ma mënti nekk doomu Cheikh Ibrahima Niass justice soxla na ma oo na ma damay jóg dem uy ji justice kon citoyen Sénégal te bépp citoyen loolu moo la war da war a mën a dem pour dem uy ji ba ma demee uy ji fekk naa fa juge boo xam ni ñu koy wax ah, juge yu maa xam jàlloo ku teey te yàlla may na ma su ma gisee nit ku jullitee yàlla daf na koy yëgal ci sama biir xol waaye mun naa seede maa ngi koy soog a gis te mënoo gis nit ki rek seedeel ko loo xam ni xamoo ko waaye li ma yàlla may man ci xëy ba gi ma am di ko gis gis naa ni nit ku jullite la gis naa ne nit ku dal la ndax laaj na ma lim ma war a laaj yépp ma tontu ko ko waaye waxtaan ree amul benn problème kon doomu aadama nu ngi koy fekkee loolu laa bëgg ci nit koo xam ne day jiite ay nit parce que ñun ñëpp nit lañ te li ñuy liggéey ay liggéey la rek ku ci wàcc wàcc nga ci dangay mel ni kon keneen ki muy police bi muy gendarme bi muy militaire bi soo solee sa tenue yaa ngi ci service waaye soo paasee service boobu nag xamal ne nit rek nga kon nit koy dugg ci bureau di liggéey te loolu wane na ko te naw naa ko ci loolu tey nag man li ma taxoon a dem maa ngay leeral sénégalais yi ne man aji Sarr encore une fois sama doom la encore une fois ñoo bokk Mawlana Cheikh Ibrahim waaye encore une fois musuma gis Adji Sarr bët ak bët musuma nuyoon teg Adji Sarr moom nag gis na ma bokk na ci sama kuréel muy Shabab al Fayda ma waxaat musuma oo Adji Sarr waaye Adji Sarr moo oo man nag li ma war mooy ndaw laa bu bëggoon àddina nekk ci àddina te nekk doomu sëriñ gannaaw ba ma jógee Mauritanie jàngi ba ma ñëwee bëgg naa àddina waaye ba ma demee ba xam ne àddina bëgg ko nekk ci du sa yoon ndax sa baay daf laa jur ngir lim jàng ak lim tabax ci lislaam pour doomam yi ñëw àggale ko ma gis ni lii mooy sama wareef lii mooy sama liggéey bañ naa ko ba ci sama profession dama def chef religieux ma jóg nag pour dox mission boo xam ni sama baay xam naa ne lim def yëpp mënuma ko waaye dinaa ci def lu ma ci mën ëllëg suma janook sama baay nga xam ne du ma rus yàlla may ma may jël ay xale di leen yar te képp ku may yar xam nañ ma ci dëggu te Médina Baye gi ma dëkk muy samay mag ñépp xam nañ ma ci dëggu yàlla may ma bañ koy gédd di ko dind ci Cheikh Ibrahima ñas ma taxaw défendre na leen nit a ngi nekk jullit ba pare am jikko yoo xam ne rafetul ci lislaam sakkantuma nag koo xam ne nee nga tariqa la yàlla moo gën a foor lépp yonent bee gën a foor ñu fi nekk ñépp kon nag nekk taalibe Cheikh Ibrahim après mun naa mel neneen ci loolu ma defendre ko ci laa toogee gis naa waajuram toog naa ak moom toog naa ak frère yàlla may ma xel may xalaat ndax man bëgguma injustice man dama bëgg lépp di tegu ci yoon ma waxtaan ak moom waaye pour leeral décembre la ma wow ñuy waxtaan ba ñuy waxtaan ma dugg ak moom ci waxu yàlla ba na ko ñun ñi est-ce que xam nga ne yow yowmal qiyaam man mii di wax ak yow ak ñun ñi ñëpp ay complice lañ yàlla danañu buggal mu ne ma ah waaye du complice nag loo xam ne ma ne ko déet li nit ñi nekk def ko loolu mooy complice mu ne yaa ngi may tiital bàyyi loolu mais après dama bàyyi wax jooju dugg ak moom ci waxu àddina biir waxu àddina boobu ci lañ dugg ma gëmloo ko xaalis mu tontu ma waaye li ci nekk dama ne bis bu ko sénégalais yi dégloo ba xam dëgg googu nekk ci sénégalais yi boobaa di nga gis ku bàyyi magasin mu ubbeeku di nga gis ku bàyyi oto mu ubbeeku mu bàyyi ko fa di nga gis ku téye woon cartable ay milliards sànni ko fa daw pour manifester wu man kilifa laa du ma toog li ma yore woon oote na ne képp koo xam ni kilifa nga walla xalifa nga maa ngi lay ñaan ngi ñëw dimbale ma ngeen ñëw ñu waxtaan ndax lii waroon nañu ko waxtaanee bu yàgg balaa nit ñi di dee ndax avertir naa wax naa kilifa yi wax naa ba bëgg jooy mais kenn faale wu tey tamit responsabilité boobu tamit nañ xam ne ñun sëriñ si am nañ ci àq nañ xam ne am nañ ci àq yowmal qiyaam ndax képp kuy xalifa ci réew mii na nga xam ne amirul muslimin la amirul muminin la amirul muminin mooy ki nga xam ne da ngay jiite ñi nga xam ne ñooy jullit yi pour teg leen ci yoon waaye duñ jël rek li alquran wax ataamuru naasa bil birri wa tansawna anfusakum ñi nga xam ne dañuy digle lu baax di fàtte seen bopp yàlla ñoo ñu daf leen a tëkku yowmal qiyaam kon responsabilité bi ñu dee tamit sëriñ si waroon nañoo mën a taxaw bañ gisee ne kii waat na ci alquran ne billaahi wallaahi tallaahi fenuma waroon nañoo ñëw ne suñu rakk jii de ndax samay nawle lañ man doomu Cheikh Ibrahima Niass laa te kenn ku ci nekk doomu wàllu yàlla nga boo xam ne ku ci nekk yàlla may na la waroon nañoo taxaw ne ah suñ nawle bii wala suñu rakk bi nañ ko déglu bu baax lan moo xew ñu déglu ko bañ mën a yóbbu leen loolu ñu déglu ko ñu mën koo dox ci suuf jël doomu jàmbur delloo ji jël nangam delloo damay wax sama diggante yàlla Adji Sarr musuma tuddal président Macky Sall bañ commencé ba léegi musuma tuddal président Macky Sall ki ma mës tuddal mooy ki nga xam ni mooy Mamour Diallo waaye nag dama lay fàttali monsieur le président yaay suñu président yaay suñu njiit tey àddina yépp tey ñu nekk Sénégal ñuy dund yépp yow la yàlla di gën a rëbb ndax yaa yore suñu sécurité yaa yore suñu dund tey bàkkaar su fekkoon ne téeméer la ñun ñii ñépp mun nañoo am fukk waaye yow yaay am cent pour cent pour cent bi parce que yow yaa jiite Sénégal maa ngi lay ñaan en tant que mbay Mbaye Niass mi nga xam ne lu mu dee dee dee dee liggéeyal naa la ci APR nga gañe Kaolack gañewaat gañewaat depuis 2013 ba léegi te mosuma laa lekkal dërëm musoo leen maa defal dara waaye maa ngi lay ñaan ci loolu nga fayee ma lenn lu ma lay ñaan li ma lay ñaan mooy yaay président lu musta am ci histoire u Sénégal 14 de amul enquête amul dara te xam naa ne seen papa yi seen yaay yi ñoom ñëpp ñu ngi am métit kon monsieur le président ñun lay ñaan ci kattan gi la yàlla may nga xam ne nga jiitañu ngir yàlla amalal enquette ci ñi dee ñii ndax seen yaay wala seen papa yi seen xol mën a féex te xam naa ne mën nga ko te soo ko bëggee def di nga ko def tey tey tey tey ndax tey yow la yàlla may doole ci yow ndax yow la yàlla may tey nga mel ni yàlla ci kaw suuf parce que koo bëgg mu riche mu riche koo bëgg mu dund mu dund koo bëgg mu dee mu dee loolu may yàlla la ci nguur kon yàlla yow la ko may kon soo ko bëggee xam di ko xam te lii ñu ngi la koy ñaan nga defal ñu ci enquête boobu bañ xam ñan ñoo rey suñu doom yi parce que ñooñu tamit dañ leen a amal njukkal pour xeexal leen seen gannaaw ba nga xam ne danañ kontaan présent lii amoon naa pour ñaan la ko maa ngi la koy ñaan ma yore ko audio yi depuis décembre ba léegi maa ngi ko yore te ba ma ko yoree ba léegi kenn mënta wax ne am na audio yi ku dul Baye Mbaye MC ak fa mu ko denc ca Amérique ak ca France ak ca ñam ko jox parce que man ba ma jotee audio yi damaa def vidéo te maa ngi ko dénk nit xamal ko ci guddi googu ne ko li ma jot top secret la te yàlla xaw ma kañ lay yóbbu sama bakkan su ma dee yéen ñi nga xam ne jox naa leen ko te nga xam ne gën ngeen ma lu ma wax moom ngeen di nangu na ngeen ma génneel vidéo bi wax Sénégal na leen lii moo taxoon ma ci doon xatraayu te su ma dee nañ ma ñaanal yàlla te jéggal ma loolu yépp bëgg Sénégal nekk ci jàmm ñu nekk ci jàmm tey maa ngi nii ba ma demee ci juge di dem ba ma toogee ba jox ko clé bi ba jox ko wax ya ca nekk wax dëgg yàlla dafa meloon ne liñ ma yenoon ci kaw bopp ma yenneeku ko maa ngi alhamdulilah waaye li ñuy wax yépp ci xaalis di ko wax ci nàngam man xaalis fu ma fekk foofu la may bàyyi man 1000 francs damay noos man laaj leen ma sama waa kër lu ma am maye ko maa ngi nii ba tey dëkk Dakar damay loué dakaar aw ma sax terrain terrain sax awma ko Dakar damay loué tam fii laa yaroo ba may am trois ans laa ñëw dakaar ba jamono jii may toll nii kon kuñ proposé xaalis ak xaalis nu mu neexee. xam nga ne dañ ko jënd jënd ci ay kër jënd ci ay oto waaye soxlawuma loolu parce que xaalis bi ngay lekk ñu lay sib di la xool di la regu xaalis boobu neexul xaalis bi gën a neex mooy nit romb la kontaan ci yow yëkkati jox la ko loolu soo koy lekk da ngay nekk tranquille te soo dee da ngay nekkaat tranquille ci yàlla mun naa am damay jàngale dara ndax sécurité laay jàngale ndax garde rapproché maître laa ci dañ lay wax na la soo àndeek mbooloo ngeen di dem di xeex yore seeni arme suñ leen fekkee dix personne ngeen ñu sànni garanaat walla bomb nga xam ne bomb bi mun naa exploser rey ñépp yow kenn ki na nga nga jël bomb boobu nga jël ko yow nga dee bàyyi juróom-ñeent yi ndax ñu mun a àggale mission bi kon Sénégal man ma sacrifier sama bakkan moo ma gënal fuuf yépp di nekk ci ay dee ndax loolu amaluñu njëriñ kon lii laa amoon pour leeral ko maa ngi seede yàlla yaa ngi may gis maa ngi waat ci alquranul karim ne lépp lu ñu wax ci audio bi triché wuñ ko téléphone la man maa jël responsabilité te jël naa ko jacin maa enregistré Adji Sarr pour Sénégal nekkaat ci li nga xam ni mooy stabilité Sénégal nekkaat ci jàmm man maa ko enregistré te suñ demee ci audio yee fi nga xam ne mooy orange dana xam ne oote la ñu arrêté ko lii nag ñu génne nii dañ koo génne rek pour jàmm am ci réew mi fii kenn gënul kenn du man du keneen du keneen ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ kon maa ngi wax Sénégal encore une fois polémique bi bëri na ndax dëgg la wala du dëgg audio yi man de xawma ma kan de waaye du mus a génnee ci man suy génne ci juge boobu day génnee wala ci ñoom. ndax am na loo xam ne ñañ ca tudd am na kilifa diine waaye tamit ñuñ ci tudd ñëpp ay kilifa lañ wax yi ci nekk ay wax yu bon la waaye waxu complot bi tudd Mamour Diallo ak nu mu ko defee yépp a ngi ci biir te nëbbatuwuma ragalowuma te li may wax ba tey maa ngi assumé di wax ne lii ma wax moom moo am ndax complot la tey complot la ëllëg ku ko déglu xam naa ne Sénégal gii suñ ko dégloo dina doy waar maa ngi jéggalu ñëpp di sant ñëpp gis naa ni ngeen ma taxaw wax dëgg yàlla tey toog naa ci douche bi di sangu ba si kanam ma jooy ndax Sénégal njukkal giñ ma delloo di ma gërëm di ma sant lii ma am nii rek doy na ma sëkk ci àddina wallahi lazim lii ma am tey su ma deewoon rek sant naa yàlla ndax ñépp di la gërëm muy Gambie muy Mauritanie muy fu nekk Europe surtout waa Amérique yi xajo siise dégg nga France amet muy jaay téléphone bi nekk biir Paris xaritu ngi bàyyi njooro yaa ngi dégg démb fàttewuma kenn gars yi nga xam ni ne bu Boudian sama taalibe ci Gambie ñépp di solidarité wax dëgg yàlla vraiment loolu dafa neex ci xol kon peuple Sénégal nañ leen booloo te bokk ndey ak baay nañ leen booloo te jàppoo xam ni ñii nekk fi bëgguñoo toroxal nañ leen xeex loolu ndax dee benn yoon rek la ku la jam sa dee moo jotoon ki accident sa dee moo jotoon kala tiira fetal sa dee moo jotoon ndax yàlla rek moo yelloo rey te nu ko neexee lay reyee jaamam bi lii laa amoon pour wax ko maa ngi jéggalu senegal di leen di wax encore une fois sama xol ak yéen mu ngi ci fii ak yéen waaye di leen wax na leen xawma de doomu aadama rek laa duma ma yënant du ma dara aw ma njub-njub goo xam ne sax waaye mayu yàlla la rek gu sotteeku ci man maa ngi wax Sénégal encore une fois lépp loo xam ne pour Sénégal la dinaa ko xëy di ko xeex ci dëgg ba dee moo ma gënal am alal joo xam ne lawul mukk li laa amoon pour wax ko